xaratu yowma sabti saamini asar li xidmati lmuxtaari fii sari safar déglul ma wax la li waral màggal ge nga xam ni Seex Bamba rayal demam gi xat xaala Musa xaadimul xadim li man hawaatu xaadimul xadim يا سائل عن سبب التعسيم يوم خروج شيخنا الخديم من داري تداب بك باري باسم خالق البرايا الباري déglul ma wax la li waral màggal gi nga xam ni Seex Bamba reyal demam gi Seex Bamba ne dogon ko nag tukki bi nasraani te kon billaahi ñépp dem niiraani ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dàkku seefi ña lay nasraanu ña lay wàññulu ña lay bandaani ña lay taryaaxi ña lay rañaani jazamatul xasdu li bacci laayi kaa ki foore faf di jaani laayi lislaam di jooyi ket ba génn gàddaayi ci soowu jant fépp mel ni làmbaayi Seex Bamba daal di ñaan ci barkeb jiili ni yàlla maay safiyu kullu jiili maay xaadim rasul fi soodaan maay ramu xarna bi ani niiraan yor yor bi dafa daw yaram damay rendi lu gëléem yi tey ji ak nag yi ba yàgg rek ma yuuxu xool heure bi nga xamante ni ne ne ceerno dara mutuma wax man mii maa war a dem njaboot gaa ngoog yor yor bi la dëddoon njabootam yor yor bi la bàyyi ñëpp am gisatu kenn mu ni leen nag yéen xare bu njëkk da ngay ànd ak say bëkk wala say bokk tey na ma fi ñëpp xaar man dong ngay dem. yor-yor bi la génn le 10 août 1895 18 safar yor-yor bii la jóg moom sëriñ bi ni maam Thierno mu ne ko Mbàkke mu ne ko sang borom bi ma nee loo bëgg dama ko di lépp laa bëgg mu ne may naa la lépp nee na ma génn ne mbartal tuuti dajeeg 66 espaces ci yor-yor bi commandant Saasi ànd ak ñoom jeewal sëriñ bi ne ma ni tëll yem ci ñoom. jël sama xalima sëñ Tuubaa danoon noppal ndax nit ñi gëmuñu lu bind moom nag itinéraire am da ko bindal boppam avant de partir laata muy dem la fii laay jaar ba mu jóge fii laay jaar ba mu jóge fii laay jaar lii laay daj lu ne nga daj ko dajoo nag soo toogee nag ba dajatoo daj bay dajale ñàkkul ko dajeel mu ñëw jeewal ni ayaasi minillahu inda jeewali iblisa isnaade tiobiyaawali tubaab bi ni ko da ngay fii dañ laa yàkkamti mu ni fii laay yendu doo fi yendu mu ni fii laay fanaan fanaan jeewal xëye fa ñëw kokki ñëw Louga Louga gépp nu ko fetalal jaar ñu ànd yow dee ba jeex mu ne xare ka daqul dàqul xare ka dee dàqul jaloore borom da koy nettali yéen toog leen xaar ma man rek kay dem naka la yéeg ci saxaar gi daal di wax ne allah ma ni rahmaanu fi safina bi ànd ni xadima sud madina daal di jublu ndar ne nafaali xayri laaw xabla fi ndari bi àlli badrin lu soodaka dari waa man mbind laay wax nee na naka laay jub ndar yàlla ni ahli badri dem leen walul ma sax waa ji waaye nag da koo def ci xasida rabbil karim waj il lahoo mutawaajihun bil Mustafa wa bi ahli badrin rufxatin man kummilu malaaka yi xare bara ñoo doon sama escorte naka la dugg ndar groupe bi doon tàkk kër gouverneur Faye dex gi jaxasoo géej gi léegi nag labbe bi tubaab bi labbe bi lu xew ñu ne ko Ahmadou moo ñëw Ahmadou dugg ndar géej gi jaxasoo dex gi gisoo dara lii lépp malaaka la naka leen cëpp julli ñaari rakka xëy nag wuti kër gouverneur maa ngi laaj ñaari rakka yi sunna may la lii bu doon farata foo jëm naka la agsi kër bureau gouverneur fekk na fa 84 mu kabbar allahu akbar ñaari saar yi gën gudd ci alxuraan surat baqara 285 aaya la ali imran 200 aaya la muy 485 aaya sëñ Tuubaa julli ko nu mu ko neexee seulement ni ana gone yi ku ci doon woo tubaab bi ni ko ah kan mooy sa gone mu ne ko yow mii mu ne ko maa yilif awoyof sëñ bi ni ko maa yilif addina ak alaxira bindal mu ni malaka nii dunya wa uxra samadu maa indahool ixtaarowol muhammadu tubaab bi ni ko ah mboolem ku fi am baat maa la ko xañ ci réew mi de mu ne ko boo lëggee ku am baat maa la ko jox ci réew mi tubaab bi ni ko maare ñëpp mu ne ko boo lëggee mënoon ngaa jëkk ci man kon doo jot ñooñu te bu nu gongi koo maag yow doo talaal keneen yoor yoor woon tubaab yi ne ko prédicateur de guerre sainte il trouble l'ordre public il porte atteinte à l'économie du pays il excite la haine entre les sectes il doit être déporté en Afrique centrale avec une pension de 50 francs par mois procès verbal numéro 1 délibération numéro 16 signé le 5 septembre 1895 sëñ bi ni ko di nga ko miim la mooy aaye bàqara mooy nattu yi sëriñ bi nag jóge ndar waaye waaye kebe tey jii miimal nga ko alxemes joojee mu jógee ndar ah sunu alxemes jaa ngi sëriñ bi taxawee ndar ba Ndakaaru deux cent soixante-dix kilomètres ni jëpp ñu dugal ko kan jël jóg néeg boobu xataayu néeg ba doomu aadama mënu faa dugg tàngoor wa noonu xet ga noonu sëñ bi julli fa ñaar rakk néeg boobu wax leen nee leen man ñii maa ko yeesalaat bi ma nekkee officier de transmission maa yeesalaat néeg boobu lay ba nga mën faa dugg julli fa ñaar rakk man la yàlla dimbalit mu ni tëll ci néeg bi maa jëkk a gis Masaalikul Jinaan ak sama bët jëwriñ mbàkk yu fay ma ko tingoom wan ko barab bi tey jii nag un mètre carré la woon ca jël Diop tey soixante cinq six soixante cinq mille mètres carré ci Ndakaaru yor-yor bi nag le sëriñ bi wax ni Cheikh Abdou Khadir Jeylaani gërëm na ma radiya ani sibtuhu Jeylaani yor-yor bi la ni Cheikh Ahmada Tidiane Chérif gërëm na ma radiya ani sibtuhu Tidiane Cheikh Ahmada Tidiane gërëm na yor-yor bii la wax ni xulafaawul arbaa gërëm nañ ma Ababacar Omar Ousmane Alioune gërëm nañ ma yor-yor bi la wax ni sama borom ànd naag yonent bi ak ahli badirin gërëm ma. خلينا للجنان عن غزوة والأوان بي لنا السماء ما خطر الخدم خلينا للجنان عن غزوة والأوان بي لنا السماء ما خطر الخدم عن غزوة والأوان بي لنا السماء ما خطر الخدم نجم بي لنا سما سما ما خيل بي سكن دوين بي خلينا لجنا عن غزوة والنوال بي لنا سما سما ما خبر وتبي فكن دوين بي خلينا لجنا عن غزوة والنوال بي لنا سما سما ما خبر bésu teraanga jullit ñépp la ndax yàlla kat bi mu nuy bind binduñu pour fo yàlla dafa nu bind pour ñu jaamu ko waaye bésu tey bii ah mbokk yi lislaam moo yëkkatiku mbokk yi lislaam moo am tiitër barki démb nag nee naa ci palaato bi murit yi moom dañoo defe nañu moom sëñ Tuubaa waaye Cheikhul Khadim du pour murit dong de Sëriñ Bamba pour jullit ñi la Cheikhul Khadim mbaaxam ak yërmandeem romb na sax jullit ñi kon tey bis bii kenn ku ci nekk dafa war a jox loxo moroomam ne ko félicitation mbokk yi bésu tey bii yéefar yi bu ñu amoon li nu bëgg kon sëriñ bi du dellusi waaye nag nduróo gim ko nduróog rasulullah yi moo waral lii lépp keroog bi mu nekkee makkatal mukaram juddoo makka yaroo makka màggee makka yàlla yónnee ko ca makka saay saayu makka ay mbokka maki ñi dëkkee makka di fexe pour rey rasulullah yi dañu doon pexe pour rey ko di def ay séminaire di nekk ca daaru nadwa pour rey ko bi ñu ko laajee samaam Cheikh Sidil Hadji Malick dañi ala xuraysun bi daari najwa ci tamaau xawfa rasuli wa najdiyun bi xisbihimi gi ni alaa waawee xuraysun waa xuraysi ijtamaau dëppoo nanu ñoom waa xuraysin ala xur li daari najwa ci tamaau euh, euh, xawfa rasuli ñoom ragaluñu yonent bi de ragaluñu ko ndax nit la bokk ci ñoom xam nga lu ñu ragala mm-hmm. xaw fa bi izhari nuuril islam min nabiyi sallallahu alayhi wa sallam li ñu ragal dañ doon jaamu trois cent soixante-douze yàlla ca biir kaaba ga ñu ragal leeruk lislaam ñuy taxaw pour rey rasulullah yi fukki ponkal ak ñaar ku ne gàddu jaas yi yàlla ne ko ñu ngi waaj de pour rey la su suñu la muñu mu ñu la mënul rey li ñu bëgg mooy génne la waaye tubaab yi ba ñu mënul rey cheikhul xadim dañoo pare pour génne ko ah xaw ma dégg maam déet dañoo pare ñoom ni xam ngeen lu xew a bu ñu ko royee ci dëkk bi ku am ku mel ni Sidi Biraay maam si Ibrahima Fall maam Cheikh isaa Diène sol maam Cheikh Anta borom gaawaan Ceerno Biraay euh, ndaamal daaro borom fit wa jàmbaar yi ko daroon bu ñu ko rayoon fii problème ñëw ah ñu ne xam ngeen lu xew a nanu ko génne teg ko loo xam ni ay mbokkam bu ñu ko déggatul fàtte ko ndeke ñoom xamuñu sëriñ bi ne bi may dem ànduma man dong ma man dong de ànduma man dong bu àndoon moom dong problème dina am mi ngi ànd ak yàlla ba ànd ak rasulullahi ànd géej ga nag mu ni ca géej sa kër gii nag mboolem turux yi di nga fi gis xam nga looy dalal gana a kanam du bernde kanam kanam kanam mooy njëkk a dalal gan waaye sa kanam gi tàllil nga ko boole koog mbaax boole koog tedd nga boole koog tabe te rasulaay nee na ku jox nit mu lekk ba suur mel na ni tabax nga julli jumaa junni juma non Cheikhul Khadim kenn xamul lu mu doon na ngeen ñëw santale ma yàlla bu leen ci yem li tàmbalee ci ginaar ba ca gileem mboo xoolal mbooleem lu dagan maanaam mbooleem lu dagan a lekk laa wax de pitax am na lu ko gën a ndaw picc yi sax am na fi picc picc waaye soxna Mominatou ma wax la ni la danga naawe ñaari laaf bokk fii ci kër Seexul Xadiim nga jeex tàkk ci Sëriñ Bamba ba nu xam ko bëggoo lu dul Sëriñ Tuuba bëggoo lu dul njabootu Sëriñ Bamba ji bëggoo lu dul Sëriñ Saaliwu Mbàkke soxna Momi waaye nga bokk kër Seydil Hadji Malick uh-huh. moo a bàyyi Modou Samb daaneel alaaj daaw góor jël mbindum jàmbaar ja seex Seydil Hadji Malick nga xam ne ñun mooy sunu sëriñ olo fay wax ne ragal péete day xañee déedéet du xañe wërsëg cër lay xañe cër maa ngi lay wax ni nga yëg nga ñàkk yëg borom bi subhanahu wa taala bég na lii mooy bégal yàlla lii mooy bégal rasulullah gi waaye nag borom màggal gi di seexul xadiim mamadul xaakim yi borom tukki bu rëy ba ki jàkkaarloog rasulullah gi ne ko yaay ku tedd ki ñu defee ne lu ñu ciy teg daa tedd man ahmadou sëriñ bamba ne ko maa lay liggéeyal antal karimu anal xadimu dëxëral uddiimu xam nga luy dëxëral uddiimoo du du déedéet tàmbaliwul 1853 ba 27 dëxëral uddiimu ba keroog yàlla wul doftu bi ko firee feneen baax mënta weesu saaliw demal Égypte laaj leen mbaate kowet nga laaj leen suñ ko xamul nga jàll si laajte fa baatub saaliw saaliw mooy a jiwin nii la nu koy firee fi nun malaktani malaktani maxtadali yaa za zaman وكنت لي بلا انتهاء بلا من ساخيتني ساخيتني ما بخيبك أخجرا سابت جملة خلاتي بقرن شهدتني بما كفاني المهن يا من لفلكي ببيتك سهل

wa saydil sama mawdo nee na mi ngi leen di seereel digganteem ak mbokkam mii di sëñ Abdou Aziz dani ni ni ko def moo tax bu gàmmu jotee xam ni gàmmu ñëpp ko bokk waaye ni mu koy def fii ci màggal gi ñemewul dugg ba génn ko te demul ci sëñ Abdou fekki ka ngir nii nga xam ni def na ko kon mi ngi leen di seeral cant gi nga xam ni mi ngi ko koy sant maa ngi fàttaliku sañ aade yaakaar naa ni yéen a ngi koy fàttaliku am na at moo xam ne ñun seere nañ ko Cerno nekk nañ di wër Tiwaawan ba daanaka 4 heures sañ Abdou yeggul woon 5 heures du matin ah. waaye dañuy du ñu génn Tiwaawan te dugg na demuñu si Abdou Aziz ñoo ànd waaw ndax kóllëre ak yëg gi nga xam ni wan na ko ak fonkeel gi jàpp gi nga xam ne jàpp na ko xam ne ñoo bokk lépp